dinañ ci mën a waxtaan sunu kéemtalaay kàttan joxe ci sunu xam-xam partage ko ak yéen donte nag xam-xam moom lu jafe waxtaane la ci jamono ji ñu toll waaye nag dañ ci dañ ci waslu ak sunu kéemtalaay kàttan li ci des rek incha allahu rabbi yàlla nekk njëriñ ak dégg ak topp ñu ñaan ba képp ku ñu yàlla booleel incha allahu rabbi te ñu nar la jëriñ yàlla nañu sunu borom wanale képp ki nga xamante ni itim sunu borom. namm na la gën ci yow yàlla na la ko yàlla defal te yóbbu la faray faj ak li gën ci yow ci baaxu yàlla ci màggu yonent bi ak aminu sëriñ loolu soo ko déggee maanaam forme yi am ci dysfonctionnement érectile dafa bari tout d'abord dysfonctionnement érectile définition mooy góor gi nga xamante ni dafa am jafe-jafe maanaam mi ngi am soxna waaye dafa am jafe-jafe pour sëy moom normal jafe-jafe nag pour wàllu sëy nag nekk na lu yaatu ndax boo ko seetloo lu ci njëkk dafa am faiblesse sexuelle mooy forme bi deuxième forme bi am na impuissance sexuelle troisième forme bi am éjaculation précoce manam dal dysfonctionnement yoy ñet ñoo ci gën a muy impuissance éjaculation précoce ak faiblesse sexuelle moy ñet yi nga xamanteni ni ñoo ci gën a quatrième forme bi nga xam ne jamono ji gis nañ ko muy ci walu sàkkara bi nga xamanteni dafa tuuti wala dafa ndaw wala mu dellu ginaaw loolu moom bokk na ci ñi nga xamanteni jamono ji bëri askan bi ak jeunesse bi ñi ci juddu ñu bari sen sexe il mu am développement bu normal mais day am bu touti bi nga xamanteni dal daal day nekk lu doy war lolu moy quatre formes yi ci gëna fess ci walu dysfonctionnement érectile. dama euh, déggoon ay sëñ bar ñi wax ci mom ay jaloore. euh ño xamé dañ fa demoon am ay résultats. bon pratiquement mosuma sé hôpital. am na soxna non du ma woon intéressé mais pratiquement damay sentir ni bu may sëy daal pratiquement ak bu njëkk ba ak léegi vraiment uute na uute na am na différence si laa ñëw dégg ñuy wax sëñ Bara ma ñëw seet si bon war na mat juste euh, deux à trois mois maa ngi sentir am vraiment amélioration wax dëgg yàlla par rapport ak bu njëkk ba waaw jërëjëf jërëjëf Mame Rane jërëjëf macha allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namm yàlla moo namm ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan rek képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci wér yàlla ñu sunu borom wanale ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu laay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na sunu borom nangu suñuy ñaan yëpp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall rek la ñu yaakaar ñoom daal la ñu teg suñu lépp ñoom la jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko jàll ci la ca topp jërëjëf cheikh bi jërëjëf euh, origine forme yi nag les origines des formes li ci gëna fess moy comme bi mo mujjee léegi ñi nga xamanteni sen sexe dafa tuti wala dafa ndaw forme bobu li ko causé moy surtout masturbation masturbation nak pour ñu ko xamul moy mballu moy xalé bu goor bi nga xamni wala nit ki nga xamanteni da fay xol téléphone di am envie di foy bopam di masturbé wu loolu bokk na ci li xamanteni moy première cause yi bokku na ci li ci gëna fess éjaculation précoce moy ki nga xamanteni dafay sëy waaye dafay gaaw a yegg loolu origine bi ci gën a fës mooy stress nit ñu bëri bu ñu stressé du am éjaculation précoce loolu mooy seen origine muy ki nga xamante ni dafay ànd ak soxnaam mais du ma deux wala trois minutes sax day gaaw a daanu. kon nag bu ñu jëmaatee ci wàllu faiblesse sexuelle fatiguement muy coono dafa nekk li nga xamante ni day tax góor du am puissance du am puissance normal ak ñi nga xamante ni itam comme ni ma ko waxee sànq dañuy def masturbation dafay nekk li nga xamante ni cause lay doon ak moy origine bi nga xamantene day tax puissance du mën am endurance du est durer te du mën yagg ci walu sëy kon origine forme yi buñ ko doon set yoyu la ak li ci muy ay garab dinañ ci développement bi du ñak dem ci question mais origine yi en fait en quelque sorte loolu Lamine la ah di la ñaanal yàlla rek nga yàgg ci nga yàgg ci àdduna lu yàgg yàgg di xettali jaam yi vraiment maa dee doon déglu sa benn waxtaan ci varicocèle wax dëgg yàlla bëri na ay sëriñ yoo xamante ni daal joxewuñ ci daal maanaam lu ñu xam vraiment yaa ngi xettali jaam yi yàlla na nga yàgg ci suuf waaw yàlla na nga dajak sëñ Touba aljana ci barke Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yal na yalla dafa sutura aduna ak àllaaxira lepp loy sent ci sëñ touba rek yal na ci jot ci barke Seyduna Muhammad ni ngay xettalee jami yi yal na la yàlla xettalee noonu vraiment léeg-léeg nga joxe yo xamante wax deug yalla nit fay na ci ay milliards te gisul résultat vraiment yow ñing lay gërëm di la sant maa ngi lay gërëm di la sant bu baax jërëjëf. faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce nit ñi ëpp ci ñi muy dal buñ ko seetloo jamono ji moy jeunesse bi jeunesse bi moom vraiment sonu nañ trop ci loolu. ndax léegi xale yi dañuy juddu rek fi ñu war a amee soxna diggante quinze ans vingt ans ba vingt cinq ans trente ans dañu gis couche jeunesse boobu dañu am jafe-jafe trop ci wàllu doole wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy ñoom ñoo ko ëpp ndax bu jëkkoon paa yi nga daan gis mag ñi nga xamante ni am nañ ay soxna am ay njaboot def lañ seen vie ba pare ñoom ñoo daan dem ba ci diggu àddina di am problème mu boobu waaye léegi jeunesse bi la gis ni ñoom dañuy judd rek gàllankoor yooyu di leen

te loolu wax dëgg yàlla nekk na li nga xamante ne lu doy waar la nekk xale di doog am def sa vie ba pare yow da ngay manqué confiance si sa bopp wër ni yow mi boo takkee soxna sax doo ci mën dara wala boo amee soxna sa soxna day tëdd nga tëdd doo am benn envie doo sawar sax pour mën a ànd ak moom ci sëy normalement loolu nekk na li nga xamante ni lu doy waar la. nag dama fi doon dama am woon malade. waaw malade bi nga xam si ne maanaam maanaam wàllum nguurale woon. waaye daal yàlla dimbali na ma si ba mu woom man ma ba ma egsi fii sama sama ngóore dafa wàññeeku woon xam nga xam nga wàllum ndaw rek wàllum ndaw rek boo toppee wàllum ndaw moom loolu tout le temps da mën na laa mën na laa escanté ci lu bari waaw boo toppee sa ndaw rek maanaam lu si bari boo si toppee ba yàgg ci loolu mën na laa indil feebar yooyu noonu antir naa ci ab tawféex bu baax faj bu matuwaat te dem naa fu ne nag dama daan gis ni moom bu ma fa demee sax maanaam maanaam feebar bi dafa mel day gën a yokku daal waaw bi ma ñëwee fii nag ta tasanteeg feeg sëñ bi sëñ bi jox may garabam jox may ñaanam bi ma ko defee ñaari yoon da ñet ma gis ci daal ay tan bu baax waaw bu tan bu baax sax bu baax a baax amatuma benn problème waaw garabu olof yi daal moom xam naa ne moom moom moom moo faj moo faj lépp daal euh, symptômes yi nag moom niñ ko mën a xamee comme ni ma daanelee léegi rek nga am sa soxna sa soxna tëdd nga tëdd pendant une semaine doo sax sawar pour ànd ak moom ci wàllu sëy bare na ci ñi nga xamante ni loolu mi ngi leen di dal ak ñi may ñi nga ay jigéen lañ sax am nañu borom kër mais seeni borom kër du ñu sawar bari na ay góor yi nga xamante ni itim ñoo ngi may dégg seen soxna day tëdd une semaine du ñu sawar du sawar sax ànd ak moom te loolu kon laa ku ko sentir ci sa yaram rek war nga jóg dem xooli sa bopp. ñaareelu point ba mooy ñi nga xamante ni itim euh, bu ñu duggee ci seen kër rek dañuy tiit dañuy seen fit bi day tëf tëfi wala dañuy érectionné ba mu jóg même pas quelques minutes mu am mu di mu di am dysfonctionnement sexe bi day pair. day tuuti wala mu ndaw wala bu ñu tiimee seen soxna rek dañuy gis ne automatiquement loolu day bàyyi sexe bi day tuuti di bàyyi du ñu sawar pour ànd ak moom loolu mooy symptômes yi nga xamante ni moom lañ koy xamee te itam mën na def ay migraine bopp yi metti am ñoo xamante ni seen bët yi day lëndëm seen fidi ak ay ndig ndigg mettitu yaram yooyu yëpp dafa nekk li nga xamante ni nit ki bu koy sentir ci yaramam rek euh, mën na indi ay gàllankoor yi nga xamante ni mën na téye dooleem mën na téye nguuram mën na téye kàttanu sayam waaw symptômes yooyu daal moo ci gën a fës. man fii li ma fi indi woon mooy sama jëkkër moo amoon problème problème mu nguuram amu ko woon bu ñu sëyee mais après la ko dab daal. sëy noo appen ay dix ans yooyu daal dix ans jàpp onze ans. am nañu trois gosses. la ko affaire yi dab daal. affaire yi daal da ko dafa doon wàññeeku daal. waaw léegi ba dem ba affaire yi ñëwatul. après ci lan ma wanalee ma doon waxtaan ak sama benn xarit. mu expliqué ma sëñ bi daal. ci laa ñëwee ñëw seet ko. disko sama soxla parce que avant dama ko waxoon sama jëkkër pour mu ñëw fii mais bëggul ñëw daal man fu ma ko wax daal du nangoo leen ma ne comme man maay jigéen affaire bi ñaaral xaaral ma mu jóg demal ko ba xam mu fa ñëwee ba léegi mat na ay 3 mois yooyu de alhamdulilah rabil alamin demoon nañu hôpital mais affaire yi bu ñu demee hôpital day ñëw après day demaat du normal waaw jërëjëf jërëjëf Mame Rane jërëjëf macha allah jërëjëf waaw témoin boobu moom wax dëgg yàlla li ñuy wax rek mooy Euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namu yàlla moo namu ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon suñu borom moo ñu boole damay ñaan képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci wér yàlla ñu sunu borom wane la ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu lay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na suñu borom nangu suñu ñaan yépp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall rek la ñu yaakaar ñoom daal lañu ñu teg suñu lépp ñoom lañu jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñu jàll ci la ca topp waaw risque yi nga xamante ni moom lañ ci gën a gis ndax boo amee soxna nga nekk góor wala amagoo soxna sax nga nekk góor ba pare yow munoo dara ci jigéen risque yi mu lay indil dafa bari ndax da yàq sa àddina déjà boy liguey do concentré wu fi nga nek di liguey da ngay stressé wu do am ben motivation gor góorgóorlu ci dara te encore day tas gor góor gu amagul soxna sax jigen bokay koy labat ah mu gis ni yow mi kat sa ngoro dafa doy war manam amo katan dëgëroo ku jigen ki du du sawar du sawar pour meuna def ak yow ben projet jigen jo nekkal sa relation du durée jigen jo mën a nekkal itim du la respecter yooyu yep nek na ay risques yi nga xamante dafa yak adina gor gor dal deug deug buñ koy wax ngoro motax ñuy wax góor mais fekkee da nga nek ba pare sa ngoro normalul ah lolu mom vraiment dina mëna a euh, lu bari ci doom adam macha allah macha allah rafet lerna, leer na am na wala al asim du caaxaan ma lay sante bu baax dila la gërëm di ñaanal yalla lepp lo bëgg rek yalla nako ko yombalal ci barke Serigne Touba ndax wax deug yalla nit bu la baax wala ci bopom da xam ne kii mooy kan yàlla mutim xam na ne li ma ñàkk ci sëriñ ma la ko waxee sax da nga naa ma déedéet yàlla xam na ko waaw fépp foo xam ne fii dégg naa ñu ne sëriñ ñang fa te man na a ah, dinaa fa dem waaye nag maa ngi sant yàlla bu baax doo ko bi ma dayeg yow ndax maa ngi ñaari soxna waaw damay tëdd guddi sax bala maa nelaw sax problème la problème la bala maa nelaw ngir ay xalaat yoo xam ne xam nga doo xam wala la asim doo xam waaye nag ndokk bi ma day ak yow ndokk bi ma day ak yow yàlla na yàlla def jàmm ba lépp loo xam ne lii rek yàlla namu na ko yàlla na ko sunu morom yeggal ak jàmm man day maa ngi sant bu baax ndokk bi ma day ak yow jërëjëf les risques des médicaments industriels mooy médicament industriels yi dafa bëri ay anti inflammatoire bépp garab bu am anti inflammatoire wala antidépresseur loolu nit ku koy utiliser tôt ou tard la indil impuissance sexuelle wala mu indi la éjaculation précoce wala mu indi ay dysfonctionnement ci sa wàllu sëy te loolu itim kon nu mat a leeral la kon garab yi nga xamante ni itim ñu ngi koy jaay dafa bëri yi nga xamante ni dafay indi loraange ngóor ci wàllu doolem a ngóoram ak kàttanu sëyam kon bépp gu garab bu nit di jël na fekk sa médecin mo lay bindal ordonnance bi nga war ko mëna jël ndax garab yi dafa bëri ay effets secondaires yi nga xamanteni mu ngi ci. benen côté bi itim médicament yi. moy am na garab yu bleu yu tout yu ndaw yooyu damay bañ def la publicité pour eux am na garab yu ndaw yu tout yooyu gars yi di jaay pour walu sey ndax yoy itim ay aphrodisiaque la kon gaay nañu moytu aphrodisiaque aphrodisiaque sokay jël pour sey au fur et à mesure da ngay dem ba sa organisme da koy reconnaître. te sa organisme su ko ba xam ko ba xamé ko bu dem ba la voilà kon nit ki da ngay moytu autodépendance si yoy moytu len garap yoy jël yi nga xamanteni daf lay pousser pour nga mëna sey ki xamanteni am nga jafé jafé ci walu doole nguur nga dem médecin wala nga ko mëna man ñu jox un traitement adéquat mi nga xamanteni dana ak sa yaram di ko mëna jël jafé yi ngay am dysfonctionnement yi ñu consulter la

kon nag vivre bu difficile la difficile Le couple dafa impuissant du am respect ci du am kàddu ci kër gi te dañ koy xas wala dañ koy xooli bët buñ la xasul nga dégg ko itam daañ la jëw wala ñu la ay te c'est un peu frustrant pour loolu kon nag c'est un peu difficile ñoo ngi masawu képp ki nga xamante ni dal na la na la ci la ak li lay a amin waay amin waay yow it yal na la yàlla defal jàmm nit ku baax nga wallahi moom laa wax sama doom ma ne ko nit ku baax a ngi nii nit ku modeste aussi bi ma koy xam du at yi yëpp xam naa ne moom ñi ko xam booba bariwul muy nit bu baax ma daan ñëw ci yow chaque jour mu amoon lu ma la téye nag te yow sax xamoo li tax ma téye la te moment boobu laa la téye woon te loo ma wax ca arxuraan boobu ngay tiim tegoon naa ci bët ma dund ko nag mais nag sant yàlla ndax yàlla suturaat na ma bët lépp lu mu doon jafe-jafe yàlla di teggi na ko kon sant yàlla yàlla na la yàlla defal jàmm sëñ Bara yàlla sa fan bi mën ni doj ci barke yaa nit ku impuissant mën na éjaculer mais dafa ñàkk kattan du durer ñaareel ba day gaaw a daanu ñetteel ba itim day am faiblesse du dëgër fay am faiblesse amul endurance bi kon nag mu ngi noonu daal bëriwul njëriñ bu baax waa ci wàllu prévention bi ni ñu koy prévenir mooy lenn lekk légume bu bari ak lekk fruit bu bari loolu moom bokk na ci premier conseil bi nga xamante ni ñoo ngi leen koy may moytu itim hamburger yeeg moytu lépp lu niin ak lépp lu gras beneen prévention bi nga xamante ni ñoo ko ci wax mooy éviter de faire masturbation masturbation moom bépp nit bi nga xamante ni yaa ngi koy def jàppal ni tôt ou tard dina indi dysfonctionnement érectile ci sa wàllu adina di nga faju ju ngóora di nga faju ju éjaculation précoce di nga faju ju faiblesse di nga faju ju lépp luy dysfonctionnement ci wàllu érectile faiblesse sexuelle éjaculation précoce ak impuissance loolu moom tôt ou tard sa adina moom dana bari torop loo koy faju te dina jafe pour nga wér tant que nit ki mi ngi utiliser yooyu may wax incha allah waaw traitement bi nag am nañ ci benn gamme de produit bu ñuy wax rapido extra moy solution bi nga c'est le meilleur beaucoup plus adéquat a ñetti pomate la yi nga a kenn duko lek te kenn duko ko naan day faj lepp luy dysfonctionnement érectile ci faiblesse sexuelle impuissance éjaculation précoce lepp luy jafé jafé ci walu doole walu ngoro walu katan ak walu sey képp ku ko am rek dina faju ba mu wér. Bonjour à tout le monde. Euh, alors je voulais d'abord remercier le la Lamine Barafal produit. Alors moi j'ai vu le Sering euh, sur YouTube et il vendait euh, un produit qu'on appelle Rapido Extra. Alors moi j'avais essayé depuis de trouver des solutions pour agrandir mon, mon cesse mais je ne trouvais pas de solution. Euh, quand j'ai vu le produit de, du Sering, J'étais curieux, je voulais essayer pour voir ce que ça allait donner. Euh, quand j'ai acheté le produit, le série même m'a montré comment il faut appliquer le produit et tout. C'est un produit qui est efficace. Alors depuis que j'utilise le produit, j'ai constaté que mon cesse a bien augmenté. Et ma femme même est contente parce que avant je pouvais pas durer mais depuis que j'utilise Rapido Extra, je peux faire minimum, minimum, minimum 30 minutes. Donc le produit du la Lamine Barafal, c'est un bon produit. Je suis surpris et je, recommande vraiment, vraiment, vraiment le produit du, du En tout cas, merci au sérine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, sérine. Merci. Salam wa Euh, di sant suñ borom bu baax a baax waaw garab bi mu ñu jox essayé nañ ko euh, mooy buy dépanne dépannage bi waaw vraiment comme turam nu mu ko waxee dépanne na bu baax a baax macha allah ñooy sant bu baax gis nañ si suñu bopp waaw yàlla na continue te wér topp si jërëjëf waaye yow it yàlla taw féex jërëjëf merci beaucoup. waaw jërëjëf jërëjëf Mame jërëjëf macha allah jërëjëf waaw boobu moom wax dëgg yàlla li wax rek mooy. Euh, sant yàlla ndax loolu suñu borom la yàlla moo ko namu yàlla moo namu ci moom wér ndax dañuy faj mais yàlla mooy wéral ndax docteur day faj sëriñ day faj mais yàlla mooy kii wéral waaw ku feebar faju wér yàlla la neex kon sunu borom moo ñu boole damay ñaan rek képp ki nga xamante ni yàlla moo ñu boole yàlla namm ci wér yàlla ñu sunu borom wane la ci kaw suuf képp ku nar a ñëw ci ñun te doo wér yàlla la sunu borom yóbbu fa gën ci yow man loolu laay ñaan incha allah ndax ku feebar faju wér yàlla la neex yàlla na suñu borom nangu suñuy ñaan yëpp yàlla yenent bi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall rek la ñu yaakaar ñoom daal la ñu teg suñu lépp ñoom la ñu jox suñu lépp jërëjëf Mame Rane xanaa ko ñu jàll ci la ca topp forme de ci am moom bari na yëpp a wax dëgg yàlla yëpp a baax ñun nag ça dépend bu ñu defee nit consultation ba pare après diagnostic ci li ñuy mën a xam ndax kii pommade bi lañ koy jox wala kii poudre bi la war a jël wala selon ni kii im communication bi mu dégg lan moo ko intéressé ak lan moo ko arrangé li mu ci bëgg rek ñu defal ko incha allah en tout cas saafara am na fi solution am na fi yàlla mooy wéral mais yàlla na ñu yàlla boole képp ku ñu yàlla booleel ba ñu faj la ci loolu ba mu wér incha allah. waaw jërëjëf Cheikh Babacar sama dernière moom mooy sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu xéewal defal ñu tawféex bu baax. ba képp ki nga xamante ne sunu borom boole nañoo yow rek daañu la mën a jàppale sunu kéemtalaay kàttan ci sa jafe yooyu képp ki nga xamante ngi soxla rek Dakar Guédiawaye arrêt Double S Serigne Lamine barafal Fall numéro ñu 77 169 45 45 77 169 45 45 77 160 93 93 77 160 93 93 Guédiawaye arrêt Double S Serigne Lamine barafal Fall képp ku woote livraison à domicile ba fi nga wala ñu ci numéro yooyu passé leen seen ay commande wala ngeen ñëw def consultation jàkkaarloo ak ñun ñu régler seen problème incha allah rabbi ci kàttanu yàlla ak baaxam ak yërma jërëjëf Fall Biram jërëjëf yaa baax yaa baax yal na yàlla fay la yàlla taxawu la bu baax baax baax baax baax ci yow te la bu sobee la incha allah jàpp naa la wóorul sama diggante ak yow ñu def wóolore bu bu wër te lu dëggu parce que nit ñaay nga nit ku baax nga nit ku sell nga nit ku yiw nga macha kontaan nañ lool ci yow Fall jërëjëf jërëjëf jërëjëf yal na yàlla fay yàlla barkeel bu baax a baax jërëjëf Fall kontaan naa ci pas tous les mots à vraiment kontaan naa lool lool lool jërëjëf Fall merci beaucoup yéen ci yam ñi nga xamante ne dañu am ci côté urologie loolu nag boo leen ko déggee muy ay mal formation yi nga xamante ne day am ci seen ay sexe surtout nag ñi xam xamante ne seen sexe dafa dëng ñii dafa jàdd ñii dafa tuuti ñii dafa ndaw te loolu nag dañ ci am pexe ndax muy sunu gamme de produit bi moom dafay faj lépp lu ni men rawatina nag ñi xamante ni sax ñoo ci gën a bari te gën ci am problème mooy ñi xamante ni dañu am faiblesse sexuelle impuissance sexuelle ak éjaculation précoce te pommade bii dafay def

te loolu dafay travailler nerf ak veine yi ba sexe bi dafay am rétrécissement wala dafay am dem ba am ay infection yi nga xamante ni dafay tere nit di mën a sëy normal te pommade bi da koy faj pommade bi nag ak dafa ànd ak ay garab garab yi nag la àndal lépp luy jafe-jafe wala lépp luy gàllankoor bi xamante ni nit mi ngi koy am ci sexe am dafa doon def masturbation wala sexe bi dafa ndaw dafa jàdd dafa am gàllankoor dafa dëng wala du mën a jóg normalement wala dafa mel ni lu plié wu loolu yëpp dañ koy faral di gis si góor ñi te dañu am jafe boobu képp ku ci bëgg ay information mën nga ñëw fii ci Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Lamine Bara Fall wala nga woo ñu ci 77 169 wala sax nga dugg ci suñu site internet www.laminebarafall.com ñu ngi santaat bu baax askan bi sant Sénégal di wax jërëjëfe Serigne Touba jaraw la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp jërë ngeen jëf merci beaucoup. salaamaaleykum wa rahmatulah Cheikh Mamadou Lamine ñoo ngi lay siyaare di la dokkeel di la jox sa waa ci waay ah jëriñ man day bëgg naa. barke borom Tuubaa bég naa de kontaan naa de jëwriñ barke Xaadim Rasuul kontaan naa de barke maam Cheikh Anta boroom gaawaan dama bég dama kontaan xam nga li gën a neex ci àddina mooy suñ borom boole la koo xamante si nii maanaam am na xolub yërmande yërëm jaam ñi ci li mu yor waaye nag yow maa ngi lay jaajëfal yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla yokk la yàlla na yàlla gën la ibbi yàlla na yàlla defal la saxaandatu daare ni te defal ko mboolem fu ab jullit ne ci barkeb maam Cheikh Anta borom gaawal xam-xam bi nga yor laay biir ji ngi ciy def yërmande ji ngi ci am yàlla na sun borom sotti la wilaya jamu sotti woon maam Cheikh Anta borom gaawaan sotti ko Cheikh Ibrahima Fall sutti ko mboolem mag ñi àndoon ku tedd gi mbooleem seen wilaaya yeeñ yoroon ba mbooleem luñ mas a ñaan suñ borom suñ borom nangul leen ko yàlla na ko suñ borom tàbbal ci sa jëmm ji ci barkeb maam Cheikh Anta borom Gaawaan li may ñaan nag sama xol laa ko tibbee la ko ñaanal wallahi alazim feebar bii di feebaru ni nekk feebar bi nga xam ne day dell góor bëri na ci góor ñi xam ne daf leen dal maanaam dafay jàpp seen Ablaye Ndiaye muy dëng Ablaye Ndiaye bu dëng nag mooy Ablaye Ndiaye bu jàdd gauche wala mu jàdd droite wala mu sëgg maanaam daal day sëgg ba bu bu sëyee sax day gaañ ko jigéen wala boog du mën a jóg normal maanaam day gaaw a peer day gaaw a dégonfler te du dëgër ndax tuyau bu dëng du am pression te ndoxu seyukaay bi itam du nekk qualité bu baax infection da koy waral ak góor guy fowe boppam di jël sa awra di ko bës ba sa ndoxu seyukaay génn di fowe sa bopp loolu moo tudd mballu lu dangereux la ak boroomu caleçon yu xat yi te seere ni ñàpp ci seen yaram loolu baaxul rawatina nag ñi daan def sport de combat ba ñu jël ci ko kon traitement bi koy faj mi ngi nii ay pommade la comme ni ngeen ko gisee univers bio bu Serigne Lamine Bara Fall nekk Dakar Géejawaay arrêt du Balès kër Serigne Bara boo leen ci ñëwee di ngeen ci jot tawféex rek la dana yokk doole gi yokk ngóore bi yokk kattan gi maanaam daal lépp lu jëm ci télé ak awra bu dëgër bi nga xamante ni daal du jàdd fenn macha allah dana jub kocc nga ciy gis sa bopp ki nga ko sekkal di ci gis boppam ma conseillé la xefee la am pommade bi buñ la ko digalee jox la nuñ koy jëfandikoo boo ko jëfandikoo peu lépp dina am tawféex 77 169 45 45 77 169 45 45 contacté ñu ci whatsapp ñu expliquer la nan ak naka boo ko jëfandikoo lépp baax géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw sëñ bi Fall yaram ñu ngi lay siyaar baax te di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax a baax a baax. Euh, maa ngi rafetlu kàddu yi maa ngi lay sant te di la te di la ñaanal yàlla. mi nga xamantene mo la fit féetidee ci walum faj ma ngi ñaan ci di Cheikh Ahmad Bamba khadim Rasul ci barki mam Cheikh Rafal ci barki Alaaji fall Mbàkke ci barki seigne muntaha mu seigne Basiru Mbàkke yalla yok sa xam-xam bu baax kattanal la kep ku am ci yow yaakar am ci yow ciofel am ci yow mbëggeel ñew ci yow ajum faju ci barki cheikhul khadim wax deug yalla li nga ma wax li nga wax lepp deug bu wër teñ la yow dafa mel ni da ngaa nekk ci samay biir yaram rek nga gis lépp nag ci samay biir yaram te noonu la demee euh, li nga wax ci ni ma mel lépp noonu la barka Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi jégalu ci kaddu yu bëri yi. donc pour vous expliquer ce traitement euh, urologique c'est un traitement bio naturel qui traite toutes les formes de dysfonctionnement érectile c'est une pommade et une poudre à boire. Si, exemple, votre sexe a des malformations, si c'est courbé, ou bien votre sexe a un rétrécissement, ou bien surtout si vous avez impuissance ou bien éjaculation précoce, même si vous êtes faible en érection, vous crachez vite, et surtout la taille de votre sexe, si c'est petit, c'est diminué, il n'y a pas les bonnes érections, on a des traitements bio naturels, c'est une pommade, et une poudre à boire. Je précise que c'est bio naturel. Ce sont des plantes bio naturelles. Il n'y a pas de toxique, il n'y a pas de chimique. On l'a fait ici au Sénégal avec des composants bio. Voilà, ce traitement-là vraiment va vous aider par rapport à toutes les formes de dysfonctionnement érectile. Comme je viens de citer, vraiment, ça va, ça va bien régler ce problème. Définitivement. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Donc, euh, si, si vous êtes intéressé de ce traitement, essayez de nous contacter, essayez de nous joindre sur ce numéro on est à Dakar, Sénégal, on va vous le livrer. Surtout les personnes qui ont l'habitude de pratiquer ou bien de faire la masturbation. Vraiment, ce traitement-là, ça traite tout. Donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à Dakar. Notre numéro, c'est 77 169 45 45. Ça, c'est mon numéro direct. Il y a aussi le numéro du secrétaire, 77 646 41 21. Ce sont les contacts que vous pouvez nous joindre avec le numéro direct et le numéro du secrétaire. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je veux juste faire euh, ce petit témoignage euh, pour, vous parler du produit de Serine Lamine Barafal, le produit Rapido Extra. Alors, moi, moi-même, j'ai connu le produit par le biais d'un ami qui m'a montré le sérine. J'ai acheté le produit, euh, le sérine même m'a montré comment utiliser ça. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations. Déjà au niveau de la taille, parce qu'avant la taille de mon pénis, c'était pas du tout, du tout ça. Ça me convenait pas trop. Donc je cherchais des moyens pour, pouvoir agrandir ça. Mais grâce à ce produit, le, euh, produit Rapido Extra de Sérine, bah, Lamine Barafal, j'ai vu une nette amélioration. Et pour vous dire, euh, depuis que j'utilise euh, le produit, je suis vraiment satisfait. Ma femme aussi est satisfaite parce que depuis que j'utilise le produit, je dure longtemps. Je dure longtemps. Donc euh, moi je recommande vivement le produit, ce produit de Céline Lamy Barafal, ce produit euh, qu'on appelle Rapido Extra, moi je le recommande à tout le monde. Un sexe, selon qu'il soit court ou long, Est-ce qu'il peut avoir un effet sur la fertilité Oui, oui, oui, ça peut avoir sur l'infertilité, mais aussi ça, ça, ça, ça, gâte une couple. Si tu as une femme, tu ne parviens pas à la satisfaire comme tu le veux, aussi c'est dangereux. Je te, je te dis, il y a beaucoup de gens qui ont une impuissance sexuelle terrible. Mhm. C'est dû à, ça. Donc, chez nous, on peut, on peut avoir des médicaments pour agrandir la, taille de la pénis. Il n'y a pas des effets toxiques ni chimiques. On travaille à 100% naturel. C'est dû à des plantes et des pommades qu'on met sur le sexe. Et là-bas, ça développe en, volume, en longueur, en puissance et en érection. Et c'est des pommades traditionnelles C'est des pommades traditionnelles. Donc toujours... C'est dû par des plantes, par, les sèvres, par les écorces et, les tiges. Parce que nous, on a appris la plante dans toute sa globalité. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa tey nak ñu ngi fi ci univers bio muy cabinet Serigne Lamine Bara Fall surtout sama mbokk góor ñi wàllu doole bi walu ngóora walu katan ak walu sey pour lu yok guddaay bi way bi rëyaayam ak dëgëraay bi muy ñetti pommades yi ñoo def en même temps dañ leen di mayalé ay garab pour faiblesse sexuel may la pour éjaculation précoce ci katan yalla kon képp ku bëgg jokk ak ñun mën nga ñu wo ci 77 169 45 45.